ton bi ñu fàttalante bokk yi tey nopp dafa dalooti jamono daa toll ci wax foo xam ne moom la mag ngi daan wax ne bu boroom kër di waxtaan ci am péncam nga xam ne moom moom pénc bi moom kër yu bari ci dëkk bi ñu naan diw de mi ngi toll fi wax neexe léegi fi wax neexe ci boroom kër mooy suy wax ba yàgg jigéen la ca tonet ne nangam ñu ne ko mu ne ko loolu nag mënoo koo xam ndax boobu ñëwagoo ci kër su ko ne waxee ñu ne ko boobu juddoogu kon ku ko fekke woon lu nu ko nu mu ko neexee mën na ko waxee noonu moom rek moo fa nekkoon kon ginnaaw boobu soxna ñëwagu fi doom di am kon soxna mënu caa doon seere ndax ñëwagutoon waaye bu soxna ñëw bu fekkee jaar na ci yoon yi laaj nañ kenn ne ko diw ak yàlla koo ci gën a sopp mu ne gag na xamut kum ci gën a sopp tontu na kon moom diw na jàkk ne moo moom la gën a sopp ci yàlla yàlla nu yàlla musal ci boobu pas-pas bokk yi cofeel bu jaam di am di ko jëmale ci suñu borom subhanahu wa taala mooy kenn du gën a dëgër ci taw moo ci gën a dëgër waaye bu ki dee tënku ci ndigali suñu borom yi it cofeel gaa koy jiitu waaye way deng ci mbirit kenn mënu la yëngal lu toll ne tarfata ay nii cofeel gu nit ki am ci suñu borom moo ko koy may kon kuy dund nekk ci keppaar goo xam ne cofeel gu war a dox diggante jàmm bi ak yàlla nekku fa na seete geneen ker waaye loolu ker bu ñu doon ker ker suba dong lay doon bu ne faa jàng na léegi da dem bàyyi ko fa waaye li wér te wër mooy cofeel suñu borom mooy keroog ngoon lu mu gën a yàgg muy gën di yaatu ba yàgg guddi far ñëw lëm moo tax làmmiñ dañ naan du lekk borom du lekk moroom ja te ñuurut axa waaye mën naa lekk borom te fekk togguñ borom sax ba muy ñëw bokk yi coofeel diggante jàmm bi ak boromam kum ne ci moom nit ñi mën nañ ko xam day sawar lool ci jaamu yàlla te day neex ci moom du ci yàkkamte dara lu ci ne daf koy jox lam laaj ci waxtu lépp muur la ne ni yow li nga mën a àtte xamoo xolam lu ca nekk waaye lii suñu borom santaane moom neex na ko bi mu koy def ndax teelu na ko tax na ko bàyyi ay yitteem kon cofeel suñu borom ne ci moom day sawar ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla day neex ci moom waaye it jaamu yàlla moo doon wéttalam moo doon wéttalam fépp tey day daal di mos su boobaa cafka gi nga xam ne moo nekk ci gëm yàlla dëgg-dëgg te cafka gi ne ci gëm yàlla dara dara melu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ñett ngi nii yoo xam ne kum ne ci yow mos nga caf ka gëm yàlla mooy yàlla akub yonentam dendalewuñ leen waaye ñoom la yàlla dendale ci alquran atiu llah wa atiu rasul yonent bi képp koo xam ne yàlla digganteem ak yàlla ak cofeel da caa dox goo xam ne mu mutu ca boppam suñ koy tudd sax léegi tey nga gis ay rongoñam ba yàgg ñu tudd yonent bi nga gis ay rongoñam ak cofeel bu metti nee na kum ne ci moom mos na cafka gëm yàlla te cafka la boo xam ne naan guy dolli aw mar la ku ko xas ba ño ba mos dutu bëgg dutu ko bëgg a yàppi waaye nag coofeel suñu diggante suñu borom ki dàqa ñaan ñëpp gën a xam ñëpp nu ñuy ñaane dàq koo jaamu mooy sallallahu alayhi wa sallam daane faral di ñaan naan yàlla yàlla na nga ma may ma di la gën a bëgg di gën a bëgg ku la bëgg bay bëgg koo xam ne dalaa bëgg ma bëggaale ko ci bëgg gi ma la bëgg te nga may mayet may bëgg lépp loo xam ne ku ko def dana la gën a jege asaluka xubbak wa xubba man yuxibbuk wa xubba amalin yuqarribuni ila xubbik waaye bokk yi ki dem ba naan yokkaat na léegi ci doxale ak cofeel digganteem ak boroomam bay bokk yi ku dul yàlla ab jaamam la lu mu baax baax yàllaa ko bindit kooku nga xam ne xolam yokkat la ndax lan nee naay la ko diw defal diw lu mu koy def fu mu ko jële moo ne yàlla wéet naa ak moom foo xam ne diw fekke wu ko dana wéet ak moom foo xam ne diw du ko fekk te nit ki nag ab xolam bi cofeel di nekk ku ko yàgg taral dana ko ca dugal waaye nag taral bi suñu borom jox nit nit ni moom mënu ko ko jox ba mu ba mu koy wottee cofeel ak suñu borom bi yàlla nu ci yàlla musal ndax cofeel suñu borom bi lu ne nit terale ba nga di ko yéem ba sama xel di daj loola ci li fi suñu borom indi ko jëlee wa ma bikum min ni'matin fa min allah da koo jaarale ci kooku rek moo tax ba nit ko ñëwee ci kër suñ bu mag bi di yoor ba dugg ci kees goo xam ne ña fay dugg du bari mu dugg ci néeg ba fekk lu ñu fa denc mu ne ca coppet dugal ci jibaam sëriñ bi taxaw xool ko ba mu jël ba def ci jibaam mu taseek moom mu bëgg ko faa delloo mu ne ko déedéet sa wërsëg dangaa yàkkamti waaye boo boo ko laajoon ñu jox xéewal yooyu suñu borom wax nag ne lu way am lu tuuti la ca ak fu mu ko mën a jaarale ñëw am nga fu mu ko mën a jóge saa suñ xoolee gis ko xéewal yooyu dafa ñoo tiim nekk ci wet gu nekk ci wet yi ñu yi seq noonu moo xam guddi la wala bëccëg moo xam koo ko yëg ko wala mu feeñal ko waaye nag su dee dikk su dee lu ñëw guddi su bëccëgee ba ca sant yàlla moo yàlla ñu xam wala mu wax ko ci kaw ñu dégg yomb naa la yàlla ndax yàlla rek moo am murut jeexal mooy joxe te loolu may mën a jox ba nga di ko yéem ba di ko wottee suñu borom yàlla nañu ci yàlla musal ñëw na ci kaw suuf indaaliwul dara dana fi jóge te du yóbbu dara kuy ñëw day bank ay loxoom lañ wax ñii for ay xale ñoo koy wax ñii for ñii ñii nañ li ci ëpp day bank loxo yi te soo ko tàllalee mun a ma dara maa ngi nii suy demit bu fekkee ba mu fay bàyyi koo fekk aw nit fekkee nañ ko dañuy tàllalaat loxo ya mu ne mi ngi ne yorub dara mu ngi dem kon diggante boobu mënu fi man boo xam ne day fàttaloo nit boroom diggante ak borom bam di ko sopp di ko tànn ci buñ ko tànnloo diggante kooku ak yàlla bokk yi bi amagut yàlla moo fi nekkoon moo ñu amal kookee muy wax yëgutoon ne danañ am lu wér la léeg-léeg ñu ne diw xanaa yëgoon ne diw laa wéré di mu ne yëguma ko woon dara ump ci suñu borom mën nag koo teg waaye suñu borom mi moom képp la ak mayam sëmbërtalu si ñun ñëpp daj képp kenn ku kenn ku gis doon sa morom wa asbaga alaykum niamahu zahiratan loo xam ne sa morom di yëg leneen te yëgoowu leen xamu leen ne ki leen ko yëgloo kenn nit am lu mu foogutoon mën na koo fob ci nit dem ko nekku fi wala fekk ma joxe ko digaat waaye yàlla lay joxe yàlla siitu ci naaj naag teel naag guddi na te wat bu mu lam mën na koo daj wa in taudu waaye nag anaan lu nit di toogee ba yàgg mu naan diw moo ko gënal yàlla wax moon yàlla de mooy yoor yoor boo ko déggee moo loo xam ne dañ la ko ne foo ko jox la ko te xamoo fu mu jóge te kàddu yooyu mu wax du ko xañ du te yàlla di ko jox te moom la muy def ko si néew jàpp ne dama koy séqal su ko defalatut du ko jox cër ba mu ko jox ba mu koy suñu borom mën naa am buggu téere dutu ko dutu ko gis dañ koy téye bu ñëwee nit danay def fi barab di def di def def ba fu mu ñëwee ñëpp xàmmee ko yóbbu ko fa mu bëgg a dem waaye loola dañ ko ko fayee rek ci li muy def buy bàyyi laa di gis pay gi léegi yàlla nag doxewut noonu nit mën na koo teg ci kawam lu nekk di ko yàq lu ne di ko joxañe lu ne waaye du tayam di ko jox ni muy joxe ñëpp ñi koy ñi koy jaamu kon boog ñi xam ne seenu sopp borom dëggu ci ñoom dara du leen jaral dara ndax xam nañ lu ne ci kaw suuf si suuf lay mujj soppaliku kon boog loo xam ne mi ngi ci kaw suuf ak nu mën a toll suuf lay mujj doon jërut weccee ak jëmm suñu borom ji nga xam ne fu fu lu jàll moo ko jàll koo xam ne kii nag ak soppam suñu borom dëggu la dëggu na ci moom day soppaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp am njàngaleem te teg ca tànkam loolu yomb na xam ndax yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jóg jëm si si moom duy teggin kenn ku ne mën ngaa xam kilifa gum fonk waaye léeg-léeg bi téléphone xewee danaa ko nu may def ba gis ko donte xam na fa kilifa nga nekk nag kooku xam waaye dugg ci kër kilifa nga rek ñaaj wutali fam nekk ku ko def ñu téye ko gannaaw bi sa ñëwee boobu boobu protocole bu rëy la suñu borom moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw naan la sopp naa suñu borom sopp naa ko sopp naa ko xoolal nu mu def ak sam dàngale su fekkee daa sopp te xamagul nee ko tegal sa tànk fii ma ko teg soo ko teggiwut nii nga soppe suñu borom suñu borom daan la geesu bis rek na la mën ñi dama laa sopp sa affaire baax in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum moo tax diw la gën a sopp ci suñu borom léeg-léeg sax muy nax diw te diw na koo xam waaye baat yooyu moo neex ci moom rek loolu moo koy wutalee suñu borom suñu borom am luy neex ci moom ak naqari sopp na diw te bu ñëw fi diw rek lay waaj waajtaay yi dem ci diw bu fi jógee mel na melaatoon wérul waaye am nañu naan sopp nañ suñu borom it sopp diw mu ne dañ ko dégg waaye sopp suñu borom mu ne am nañu ko tudd waaye yëguñu maanaam baat bi am nañu tudd xajibullah waaye yëguñu ko waaye danga gis ñu ko sopp sax naan man maay sopp diw te diw moom ndax daf jamono rek ba mu ñëwagul yàlla nga fi woon bii mu fi nekkee lu man yàlla ko manal bis day ñëw du man dara yàlla wéy ak manam gi euh, bokk yi yàlla moo nu bind te fekk na ñi ñu sopp ñépp kenn yëgu ko ci day xëy bis rek ñu ne ko diw ga am na tuut tànk mu ne ban bis la kii laaj ban bis la nag bari lu mu ci xamul kon ñu ne ko bis sàngam la mu ne lu mu am góor la jigéen la kooko yi kon xamul gannaaw nag noonu lu umpalee bis ba te am nañu ko xam ñu dëkk ci kër gi mën ko xam moom xamagu ko dañ koy wax góor la amum jigéen am nañu ko njëkk a xam dana bari lool lu mu dul xam ci moom moom la suñu boroom di wax ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata la'allakum tashkurun moo ne li nit di jëkk def bu gënee àdduna kenn raxu ci suñu borom muy day nan but rek ñu for ko defar ko ba ma ne sa jaxasoo moom dal di koy jox wenn mu daal di koy muuc ku koy xamal ndax kii mu dema dem ba mënal boppam ne moom laa soppoon moo ko xamal déedéet ko ko xamal moo ko xamalal kooku nekkoon démb ba mu yàgg mu bàyyil boppam ku ko xamal boo lekkee lu jàpp da nga war a bàyyi yàlla kenn rax ko ci moo ne ku tollu foofu bu defee yaram ne kenn du ko gis kenn du xool yaramu neenam muy ab liir yàllaa ko woddu yàllaa ci yàlla loxo yàllaa ci nekk ñu bàyyee ko yàlla ba léegi si kenn du xool aw yaramam wala gis ko tekkiwul dara waaye bokk yi li gën a yomb ci xam ne suñu boroom du kenn te kenn du moom ngelaw lii nga xam ne moom la ñuy di ko jël di di ci dund bala nga xam ne suñu boroom du kenn kenn du moom ñu teg ko ci ay yoxo léegi tey bu dee teew bu jëm si la ci yow dañuy xeex yow fatt ko wala ñu indil facture boo xam doo ko fay ñu ñu dagg ko ndox mi ñu jëfandikoo it junjoon nañ fi karone ko ñu naan bi nga xam ne moo yor ndox mi déedéet dañ naan société bi nga xam ne day root di jaay ndox yi doon dal biig am na ñoo xam ne xamuñ kañ la ko tàmbali te mën nga leen a sopp a sopp ba bëgg leen a xalaata wutale ak suñu borom wuutal ko suñu borom ne moom laa gën a sopp ci yàlla waaye bi ndox yi dal yëgu xam fu mu jóge xamul sow la jóge xamu penk la ndox mi jóge xamut yaata ndox la it ci loolu mi ngi leen nañ ñi fi sunu borom indahu mafatihu mafatihu lxaybi laa yaalamuha illa hu wa yaalamu ma fi lbarri walbaxr wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabatin fi zulumati al ard wala ratbin mooy ndox ndox yi wala yaabis illa fi kitaabin mubin waaye bokk yi facture di dégg di dégg loo bëgg a dégg dégg bay dégg loo bëggut a dégg bu fekkonte ne keneen moo yore kër googu di koy jaay am nañ am na lu ñuy jox loo xam du bëgg keneen déggat ko kon de daal di couper dégg googee dootoo dégg dara waaye dara kenn raxul ci suñu borom moo ne gët yi ñuy xoole itam de léeg-léeg nit ay gëtam naqari mu jaay ko lu muy xoole waaye day dem a dem ba yàgg dootu ko mën a gis lool kak ko joxoon moo ko nanguwaat wala ñu xool ba yàgg ñu ne mënatuñ ci dara moo ne léeg-léeg nit gane walla adduna ñàkk a wax di liyaar doonte liyaar ca wax la nit man na ko wax ko amul xel moom la ñuy wax ne law la ishaara law la ishaaratu la fahima la fahima alximaaru kalaama waaye léeg-léeg nit di wax wax itam bu fekkoonte ne wax ci boppam du lu suñu borom téel boppam jox ko kenn am na lu nit di wax rek te la ñuy jaare coupé buum nga ko doon wax la dootu wax ndax saa waxee wax toj toj toj toj bi gën a ci wax nag benn jiituwu ca ñu dendalee la suñu borom subhaanahu wa taala ne la kii ak suñu borom koo ci gën a bëgg mu tànn kenn ku du suñu borom waaye ay yoxo ci la bokk ay tànk ci la bokk moo leen yàlla jox nit nga xam ne mënees na koo toppandoo di ko wutal mu di jëfandikoo waaye ay bët bokku ci aw làmmiñ bokku ci ak dégg bokku ci yooyu moom li yàlla sedd nit ci yaramu nit ki boolewu ko ca kuy dégg ba yàgg mu mënut dégg mu tëx dañ naan yàllaa ci des seen soxna waxoon dem ci fajukaay yi newoon Dakar yu yàgg ya boobu tubaab yaa ngi fi yóbbu fa kum yaakaar yaakaar leen ca lool ña mën wax moom di ay nit ñu ñëw ne ko soxna si kii yàllaa ci des mu ne leen ndeketi seen jaagar jaagar ji dem ak dikk beeg nangal bi yëpp ndek yàlla képp ngeen yaakaar ni man nangam mu dee indi foofee saa bu dee ba amatul pexe amatul la ñuy soog a dem ci yàlla ndax yàlla dana ko nangu yàlla du fecc li dara di duy ba yàgg mu tëye fees ñu ne yàllaa ci des mu feesal ko déedéet moom kay fa dara nekkut nga koy naan yaafa fa ne mu fees ko dell waaye nag bokk yi lu njuumte rëy rëy wàññiku weesuwut am na ci alxuraan ñu ñu suñu borom nettali ne waxuñu di ko tànn de tànn keneen di ko bàyyee moom loolu loolu yomb yomb ci ku ne yàlla moom amul far wala yi ñuy bañ ku ko askanale suñu borom ñu askanal ko yépp ne moom la waaye yàlla nee na woon ñooñu weesu ay wax waaye ay jëf suñ demee ba wëlbatikuwaat ne yàlla kat dañoo juumoon jéggal nu mu jéggal leen qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kon pas-pas bu tàmbalee yàqu la jiw ak yàlla ku la gënal mu ne gag na gag mooy xamul ku mu tànn tànn na ba noppi ndax daa defeen yàlla nekku fi diwa fi nekk te bu tànnee yàlla diw di ko jariñ la mu ko doon jariñ wala ña ko doon jariñ ngir diw ñoom ñëpp ñu àndi caaxaan duutuñ ko amal njariñ yal na nu yàlla dugal ci ñaanu yonente boobu mu doon ñaan sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla nag ma may bis bu set ma dina gën a sopp di sopp bay gën a sopp ku la sopp di sopp coofeel gay dolli ko ci lépp loo xam ne ku ko def nga sopp ko yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina